jaww ñoo xool sa kanam yi mu mel yaa ñàkk fay nga lootaal ma ba pare balaa ngay sangu nga lootaal ma ba pare cim moo ñàkk jaww bu yuuxu ni ma yàq na am na leneen sax topp la moo lay dal sa kanam yi mu mel naa ci man sama fit yëpp dem na sax la dafa la dafa que ma waxal moom de muy def xale bi moom neexuma dara ah il ma waxal moom li moom kenn du

sañuñu yàlla rek ko man yéen a ngi nii wóoru leen ñun dañ ñoo tere lekk te dañoo naan tant que heure boo jotul parce yàlla rek ay karim waaw waaw yow rabbil alamin sant yàlla rek ci sama waa ji ay ba suuf suuf laa la woon gisuma la ñu yaa nga ci kaw xam nga ay mag lañ man bi dafa tànn te koor bi buusa ak loolu fi féex rek la ñu wër ci kaw gën a féex dëgg la joxe naa nag lool sama waay ga yee laa duma ko way ku ñaa duma ko way baadoola du ma ko woy paa bu sa màgget du ma ko woy tumbane. ah ah du ma ko woy kuus kondoloŋ. bàyyil tooñ. bàyyil tooñ du ma ko woy kuus ma ne sama war a def loolu indiw ma fi loolu kay dépense amul kër ga mais lu ñu doon dogg tey xam nga ndeysaan tey sama ndaanaan xay ma musaan jàq ñëw ci yow njàq xarit yi yaay ndaanaan yaa dib gor yaa roosay maas moral yi dinaa sa way wi yaay borom yeelaatuma ko way ko ñaanuma ko way baadoo la ñaawoodoo baadoo la ku la ci biiram fees xam nga man ak yow bëgg ci naa de démb la tey di soogu ñu dégg nga waay waaw sa kër sama kër la sa fii sa kër la dëgg la cum li nga def man xamoon naan su ma ñëwee di ma teral ñu ko bokk teraan nga xam adduna amul solo roobaa doola amul solo xam ne ku lu gisee xam ne yow kanam mu investi yow déedéet déedéet mais nga moytu naaj bi nag damaa bég fi mu jël naaj ma jël fi moytu kenn dëggatul mais suñu baat ñoo ko moom te buñ noppee raf le ma yëg kër ga ah. joxe dépasse su ma del mu gën fee neex <laughs> c'est ça du ma sa saani du ma sa saani yeeku naa waay deux mille laa ko jox te sa mille francs waaye sama cër yi lamb na yàlla ma njege yàlla ak sama àq la politique ay ay jax am ci lu mu dem rek sama xol daal di fees. incha allah sama la nekk euh, sama jaay. ah. samay deux mille. doo oh. <laughs> doo ko laal. lu tax doo ko laal laa wax deux mille. la kay lii laa la jox doo ci te samay deux mille par samay deux mille damay damay añi ji ah. xam nga yow lu lay xam yow sax da nga war a di woor comme ñëpp teel lii booy téye nga téye ba suba. suba lii daa mën woor fa la koy wooree. teel nii. damay wax. déedéet looy wax looy wax ba am téye ko suba suba boo ñëwee naa la jox deux mille. suba dama jox adresse. waaw jox adresse. su ma gëmul woon yàlla barki rasulullaay su ma ko gëmul woon damay naan su ma neexee mën naan su ma neexee mën naan. waaye mi yàqu ko mi yàqu ko Oui, ça va. Oui, ça va bien, tu vois. Le Sénégal est doux. Tu m'as vu, non Tu m'as vu comment je suis. Oui. Et eh, Abidjan. Vous m'avez manqué de. Et eh, ma copine. Ma copine est. Non, non. Ici, il y a tout. Il a tout même. Et Alice Les maquis et tout. Alice, yo. Alice, comment est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu day nelaw sama nijaay day nelaw doo dem wàcc rek nga dem si suuf rek nga dem def sa sinaar yi foofu kii day day nelaw day noppal. madame waaw c'est dérangé. bien sûr dérange mon mari. je dérange ton mari. Mhm. ah bon dama si suuf rek nga dem quoi pourquoi. daa woor c'est pas mon c'est pas mon problème ah si ton mari a jeûné c'est pas mon problème. waaw dama si suuf Alice. je ne vais pas descendre. Alice j'ai non non c'est quoi ton problème. tu fais crise de jalousie là. Alice wàccal kii day nelaw. écoute-moi. tu sais ici là c'est chez vous c'est vrai c'est chez vous. Ouais, toi et ton mari mais moi j'ai mon argent je paye le loyer je paye ce que je veux. non non écoute-moi. Alice wàccal kii day nëppalu si c'est à cause de ton mari là tu fais crise de jalousie là moi j'ai pas besoin de ton mari là. Ouais, merci jërëjëf j'ai pas besoin de lui là le vieux là j'ai pas besoin. waaw waaw ouais, Alice wàccal. ok wàccal. eh. lu xew. te yéen nekkul. maa ngi dem sama kër li nag. defal naa yëpp su ma ñëwee dinaa ko eggal. ah nelaw di gént sëkk ak jigéen boo paree sangu ji massa mag booy ah, ah, booy gént di lekk xanaa da war a galax di ko ji rek xaw ma jóg galax di ko ji waay de lii li may sant si biir ay ay jërëjëf yàlla sunu borom ñun de suñu wax peut-être naa delluwaat rek tey moom métti na Ndiaye yaa ngi toog. déedéet damaa taxaw. non maa koy ah yow kay la ko fi am na ngay fekk sa nijaay eh, toog nga naka ba xam yaa ngi toog. waaw. ah xaaral ma yéen damaa gaaw damaa defaroon yëpp ba pare. foo nekkoon yow. ci biir. bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi. bàyyi. eh ba ba ba ba. koor gi yaa ngi toog lekk ba ma yaakaar dog wala bu daan nii. am na kii branche. li branche. fu muy sax. ay xob la am ay xob. ay bu wow wala mu tooy. ñu jaar téeméer bi ñu um paas. waaw téeméer. waaw li moom. bi dina neex de. waaw suñu jaay waaw. waaw bëgg naa ko waaw moom moom toogal si rek nga xam maa ngi. ñu jaar ba lii. war a nekk xel wala nekk ci ay lekk ak yooyu. wooree tey moom sa xel mi yëpp ay dem li yow gën a métti sa koor teg lekk gis ku ni da doo ko a lekk baaxul pour pour bàyyi naa pour pour pour pour heure bi soriatul des na tuuti rek tuuti boobu mën na rey nit de sama nijaay nga béggoon nga du la rey nijaay bàyyi bàyyil bàyyil nii rek ma koy teg fii ma koy wax sama bànn Plusieurs. waaw na gaaw na gaaw jot na de nodd gi ñëw de jot na de nodd gaa ngi noonu jot na. jot na kay jot na. allahuma ah Sonko. lu ñuy wax. astafirullah. la. ñu jaay ku la jàngal. fu ñu ñu jàngee. ah allahumma laka sumtu. allahumma laka sumtu afir ah. lii ma. yéen a defal la café wala meew. bu def ba. Euh, sa koor gi de yéegul ba ma xaaral ma malaaka yi jël si koor ñu sabos yow. sabos a ngi tëdd yow. ni moom. dangaa jël ko sumbul ba pare. meew bi bu mu bari de. Ah, mu pare laa mu baax na baax na. mais dangaa woolum sax. di defaral ko rek te bàyyi ko. ñàkk jom bu ci yaw maa ngi tegul kenn lu mënul nag dara jotul njaam waaw mburu dafa doxoo ma ko baax baax baax baax baax yaa yëngal na ku ma lay yëngalee yàlla na dee. li ngay wax ñëwagul. kii lu muy def nii. juma. alhamdulilahi alamin ñoo am nañ benn. maa ngi dem julli ji te ñëw. waaw waaw ci rek ñu def bruit bi sa nijaay bëggul sax bëggul sax pare. amul suugal amul suugal lan lu muy def nii. suba am suukar baax loolu moo tax ngay sànni mburu bi suukar Hindi, pagkat na din po,